alimansool itam jagoowut lisim mënula doon màndargaam ndax mën na doon dugg mën na dugg ci lisim naam mën na doon lisim ali mawsul su ko defee di ismu mawsul silaam di sifa moom la ñuy wax sifatun sarihatun silatu al jooju al mënula doon màndargam lisim ndaxte dëgg la dana dugg ci lisim ni ki al qaimu qaimu mooy sila sifa sariha boobu waaye mën na dugg ci fiil dégg nga danañu ci def shahid ma anta bil xakamil turda xukumatuhu ma anta bil xakamil turda turda feelu mudaari ola du dëgg kooku kon ali mawsul mën na dugg ci lisim mën na dugg ci fiil kon dootuñu ko jël mandarga ndax kon leenu gis fiil ni lisim la ndax al ji walaa yuaddu min alaamati shay illa ma kaana xaasan bi wa al kon mooy ali muarrifa wala ali zaida moon tax di wax waxuñu ali listifhaami waxuñu ali mawsuliya yooyu mënuñu wa musnadin mi ngi jublu isnaad kooku wa musnadin ay isnaadin ak wéer gu ñu wéer mandarga lisim la moo xam dañu jël xabar ji wéer ci mubtada kon wéer googu tegte la ne ni mubtada mii ñu wéer ci moom lisim la wa musnadin ay isnaadin ilayhi wala faayil ñu wéer fiil ci moom dana tegtale ni faayil jii lisim la qaama zaydun wala xabar ji lañ ci wéer zaydun qaaimun kon musnadin bi maanaa isnaadin ilayhi moo ko tax wéer ci baat jumla musnad ak musnad ilayhi lu ñu wéer ak lu ñu wéer jëm ci moom la ñuy wéer jëm ci moom toujours lisim la ndax mubtada lay doon baa faayil loolu nag kon yi mu doon limal lisim jeex na tamyisun ak ràññee xasala am na li lismi ñeel lisim bil jarri wa tanwini wa nidaa wa alwa isnaadin ilayhi loolu jaam mu dem ci feel ay mandargaam bi taa faaltu wa atat wa yafali wa nooni aqbilan na ñetti mandarga la ko andil taawul faili ni ki faaltu darabtu wala taawu taani saakina ni ki darabat jalasat yooyu yaari taa ci feelu maat la ñuy mën a génnee la ñuy indi wa yaaw ifali ak yaaw ifali defal yow ndaw si yaaw tafali na mu daari o la man feeñal wala feelu lamar idribi dóoral ndaw si lamar wala tadribi na da nga dóor yaaw muxaataba gi bu baat bu muy dem feeñ la wa noonu aqbilan na wadriban noonu tawkiit soo booguñu fedd ligi ni ki aqbilan na la yadriban na dégg nga mu mën a dem ci wala gu xafiif sax dégg nga ni ki boo doon aqbilan rek wala la yadriban kookoo tam ci feelu lamar la ñuy dugg mbaa feelu mu daareew waaye feelu maat du ko am kon feeloon feel yan jël yi dana wuññiku dana ràññ ràññiku ci lisim ak xaraf ci benn ci ñeenti mandarga taawu faayil faaltu taawu taani sakina atat yaawu tafalina nuunu tawkiit moo xam xafiifa la am shadida siwaahuma ku dul yooyu yaar yaar yan yan yan yaar maanaa lu dul yaari yaari kun lu dul ku nangu ñaari xeeti mandarga yooyu ndax groupe mandarga la ñu jox lisim jël groupe mandarga jox feel daal di ne ku dul yooyu yaar maanaam si waa qaabilay haadihil alaamati lu dul lu nangu yaari mandarga yii nu wax moo di xarf xaraf nanguwul groupe mandargay lisim yi nanguwul dara ci groupe mandargay feel yi misaalam nag xal nag ñetti kii la ni ki xal ak fii ak lam maanaam xal dafa di xaraf ñetti xeet la am na goo xam ne jagoowul ci dara ni ki xal man kooku mën na dugg ci lisim mën na dugg ci feel am na loo xam ne lisim dong lay jagoo ni ki fii ak mboolem luy xarafu jar xal yóbbaale na lépp luy xarafu listifaam léegi hamza ci la mën nga ni a zaydun qaa'imun mën nga ni aqaama zaydun hal moo xarafi listifaam yëpp jagoowuñu dara fii moo xarafi jar yëpp lisim rek la ñu jagoo lam moo xarafi jasam yëpp feel dong la ñu jagoo loolu tax mu indi ñetti misaal yooyu fiilun mudaari ba mu ba mu la ne yooyu ñoo di lu nanguwul màndarga yi mooy xaraf mu dellu xamal la ni la xarafit ñetti xaaj la bu jagoo lisim bu jagoo feel bu jagoowul dara ni ki listifaam yi aywa ba mu feelul mu daari on nag yëli mooy sës ci lam lam nag ba nga déggee xaraf laat du dugg ci feelu maat du dugg ci feelu lamar feelu mu daari on dong lay dugg ni ki lam ya sàmm ji firi boo nee xeeñtuwul lam yasham sham shamimtu tiba wa wa maadiya laf aali bi taamis wasi waxoon na ni taawu faa'ila ak taawu taanis saakina mandarga fi'l la mu xamal la ni la léegi nag waxuma la fi'l bu ne fi'lu maadi rek laa wax moo tax mu ni wasim mandargaalal maadiya laf aali lay maat ci fi'l yi na nga ko mandargaal bi taa i ca taa ganu waxoon te moo doon jinsu taa ñaar ñaari xeet la woon gu faayil ga wala gu taanis ga mis ràññil da nga naan wa mis waaw gi ci wa maadiya nga ni wa mis ràññil ay sépareel maadiya la faali bi taay wasim mandargaalal feel a lamri bi nuun nuun gi nu waxoon dégg nga ni mandarga feel la feelu lamar lay doon mandargaam ci kaw in amrun su fekkee ak santaane fuhima déggees na ko ca buñ ca wul la dégg santaane kon feel jamu daari ola waaye soo nee tey idri ban dóoral e loolu ku ko dégg xam ne kuy santaane la te nun gaa ngi ci kon kooku feelu lamar la amma bu fekkee kenn déggewu ca santaane nettali lañ cee déggee ni ki la yadri ban na dana dóor de zeydun waaw kooku kooku mu daari ola bon mooy loolu mooy ma foo mun ndegam dégg nañ ca santaane feelu lamar daal moom yaa ngi koy xamee nangu nuun ci kaw ndem baat ba tegtale na santaane bu ko tegtalewul te nangu nuun kon feelu mu daari ola wal amru baat bu tegtale santaane bu ko fitee bu ko firee lamaru istilaahi da nga naan wal amru bépp baat bu tegtale santaane in lam yokku su nekkut mahallun place li nooni ñeel noon gi nu doon wax ci moom huwa bon bul na nga xam ni ismun ismu fi'l la ismu fi'lu lamri la waaye du du du fi'l fi'lu lamar naxwu sa maanaa uskut noppil xayyahal bi maanaa gaawal wala ñëwal wala andil yet aqbil asri faslun al muarab wal mabni lu ñuy liraab ak lu ñuy binaal lisim yooyu yaara am liraab ak binaal leneen amut wa amma qabla tarkibi fala iraaba wala binaa al ismu qabla tarkib laysa muaraban wala mabniyan kon liraab ak binaal yëpp faru tarkib lay doon tarkib bay am ñu amma baat boo ber moom lu mu yàgg-yàgg soo ko doon limite amul leeraab mawquufatul awaaxiri lay doon ma ngi mel ni boo dee déglu koy liifent mbaa muy wàññi da nga koy dégg mu ne waaxid isnaan arbaa ba ba mu naan tisa achar waaye du liraab ah soo dee dégg kuy jàng xoruful hijaaiya danaan alif dégguloo day taxawee sukkoon ba jiim kaaf waaw amma boo rombee classe gu ñuy jàngale ay xale ustaas ba naan ko baa un mu naan baa un waawun jiimun ni ko ustaas bu ndaw a ngi boo xam ne xamagul lu bare ndaxte lu ko lu mu liraabe boo nee jiimun da nga ko rafaa xanaa bu ñu la nee lu ko rafaa loo koy looy wax maanaam li ma bëgg a wax rek mooy li ma la ni lisim la jëkk tarkib doonul lu ñuy liraab doonul lu ñuy binaal kon boo ko dee tudd mawquufatul awaaxir lay doon maanaam da ngay wàqaf ca mujj ya ni fi dif taxaw sukkoon ci ba nga daan jiim waaw kaaf waaye bul li kaafun waawun aywa soo dee wàññit bul daan arbaatun asharatun asba ashara xamsa ndegam tarkibuloo amaa soo tarkib bi nag nga ni qabattu asharatan ndax mafoon la wala haadihi asharatun ndax xabar la kay tarkib baa ko waral mu ni nag walismu lisim minhu am na ca muarabun bu ñu liraab mooy cosaan ba nag bu ñu ko liraabul binaal ko rek lëfa ko waral lan la lenn niru xaraf dong waaye xeetu niru araf yi nag dafa bare te dana leen lim lisim cosaan ba mooy li arab muarabun mooy cosaan wa mabniyun ak lu ñu binaal loola nag moom du cosaan mooy bànqaas lu dul aslu faru la loolu moom gan la ci lisim binaal lu ko koy yóbbee mu waxal ko boppam xanaa li shabahin ngir ak niru goo xam ni muddinin gu koy jegeel la gu ko mën a jegeel min al xuruf ndax day doon shabah qawi niwoo gu am doole gu ko mën a jegeel xaraf mooy tax ñu xañ ko liraab ba cosaanam looluy liraab binaal ko nde niroogu foorul du du jële lisim ci cosaanam ndax lëf moom sabab bu foor dong ko mën a jële ci cosaanam amma delloo lëf ci cosaanam sabab bu woyof mën na ko dégg nga lu dëgg Hmm. te kon liraab lisim liraabay cosaanam sabab bu dëgër bu am doole moo ko ca mën jële te mooy niru araf gu dëgër a dëgër amaa niru araf gu dëgërul goo xam ne dafa am lu ko kontar ni ki tey eh, maanaam eh, lu mel ni tey lisimu xi ida ak yooyu comme day laaf jumla toujours niru na xaraf ci dugg ci jumla toujours waaye nag taqoo gi mu taqoo laafir yi tam faw loolu dafa xaw a dëgëral lismi ya gee tam kon niru gi mu doon niru araf feebal na ndax dafa am lu ko contre ndaxte lisim léeg-léeg day laaf léeg-léeg mu bañ laaf amaa lisim joo xam ne toujours day laaf kooku lismi yaam day dëgër dëgër goo xam ne niru ga mu niru araf dootu mën a am doole ju ko cay jële moo tax foog nga ni li shabahin ngir ak niru xawi yin gu dëgër mu di nin gu ko mën jegeel minal xorofi ci xaraf niru niru araf ga mën a jegeel lisim araf ba ñu di ko binaal gu am doole lay doon bu dara kontarul loolu nag niki lan ka shabahil wad'i niki niroo ay xeet la am na niru araf ci war safa sababu tër bi jëmmu lisim ji mooy lisim boo xam ne wenn xaraf dong la doon niki taagi ci darab tu ak lu mel noonu du dëgg wa- wala mu doon yaari xaraf yoo xam ne wu ñaareel wa wu sukkoon la dégg nga ni ki kam lisim la léegi day daal di nuru xaraf ma ngi tolloog min tolloog lam dégg loolu bu ko lisim defee ci jëmm ji moo niru araf waxunu maanaa wi de shabahul wad'i fil wad'i ci tër bi moo mel ni ki fis may ji tanaa niroo gi nekk ci yaari lisim yi ci ji tanaa ta ji mooy taagoogu ma tuddoon ci darab naa it ñaari xaraf la te bu ñaareel bi ak sukkoon la mu daal di tolloog lam ak min ak anak yooyu mu amati shabahul maanawiyu niru ci maanaa lisim niru gu mu niru xaraf ci maanaa kooku moo nekk ci mata nekk ci huna ndaxte mata ismu charte la du dëgg xarafu charte bare na lool ana in ana yeneen xarafu charte yi bare nañu dégg nga te it kon wa fi huna wala sabahul maanawi ci huna huna lisim la joo xam ne dafa niru xaraf ci maana waaye nag bu nu demee ci mata xaraf wa mu niru wan la xarfu listifaam te kooku am na nu dikk ci huna moom xaraf wi mu niru wan la ñu seet ni ah xarafu lisaara de amut nag moom te huna ismu lisaara la kon ban anam la niru xaraf ñu ni dafa niru xaraf woo xam ne kaana yastaxiqul wada walam yuda dafa yelloon xaraful ishaara am maanaam bu doon xiyaas xarfu lisaara dafa war a am ndax lisaara maanan la min al maani wa wa aslu fi l maani an tuadda bil xuruf da ngay ni xarafu ak dàq maanaa la xarafa koy def fa tawkiit feddali maanaa la xarafa koy def du dëgg charte maanaa la xarafa koy def ah waaw maanaa yëpp tawkiit xarafa koy def aywa maanaa yëpp kon ay xarafa ko doon cosaan di lëg di ko liggéeye ah kon hunaa maanaa ishaara maanaa la moo xam kon dafa yelloon a am xaraf te amu ko ismul ishaara am mu waaye kon du tee hunaa ñu ni niru na xaraf ndax dafa niru xaraf bu waroon a am te amut ndaxte ishaara ak maanaa yi nu wax yëpp ñooyam yelloo woon na ko kooku sabahul maana wi ma ngoog moo xam maanaa ma mu niru amoon na araf wala amu ko su ko amee ni ki mata sart la mata su fekkee ismul istifham la xarful istifham am na su fekkee ismu charte la xarfu charte am na waka niyaabatin niki ak wuutu gu feel lisim wuutu anil fiili ci feel bila taathurin ci lu dul muy jeexittu maanaa maanaa muy am jëf di ca feeñ ci awaamil yi kooku ismu feel la yu juñ moo mën a remplacer feel ci la muy tegtale te awaamil yi mën a taasir ci feel du ca dugg ba di ca taasir kooku kon euh, beneen façon niru la waaw ndax loolu xarafa ko daan def moo mën a remplacer feel te benn amil du ca dal na nga dem ci xuruful amila yëpp feel la remplacer inna bi maanaa uwakkidu damay feddali waaye uwakkid mën nga caa def lam lam lam uwakkid lan uwakkida wala nga xataa uwakkida waaye seetal inna moom dara munu cee dugg loolu liggéeyu araf la remplacer feel te te la daan taasir ci feel mënu ca dugg kooku meloo xaraf la lisim ju ko def niru na xaraf yelloo nañu binaal ko xañ ko liraab ni ñu ko xañe xaraf bila taathur aywa nga dem ci layta mu mu remplacer atamanna laalla mu at remplacer atarajja ba xaraf yi jë- jëf yëpp passé lakin na mu remplacer astadrib kon remplacer feel maanaam remplacer feel te way jëf yi munu la taasir ni muy taasiré ci feel munu ca dugg loolu kon ak niru xarafa ngoog xarafa daan def loolu naka noonu geneen niroo ngu fu sabahu liftiqaari yi moom la ni wakka iftiqaarin ak aajo woo nga xam ne asula cosaan na mbaa nga ni ussila cosaan na leef na ko iftiqaar loolu lan lañ ci jublu lisim joo xam ne dafa aajo woo jumla juñ cee laaf abadan faw aa ku ni ki id ak dégg nga de ni ki id ak moroomam yi id ak id ak xays yooyu kon niroo nañu ndaxte dañoo aajo if dañoo aajo laaf faw faw faw faw kooku su ko defee dégg nga ah, day daal di niiru xaraf wa kaftiqaarin ila jumlatin tudaafu ilayhi kooku s- ak niiru xaraf la kal asmail mawsulati waaw maanaa kon sax ni ki ismu mawsul yi nan ko misaale liftiqaariha daiman li silati fa huwa iftiqaarun muassalun laasimun amma su fekkoon ni baat boo xam ne aajo woon a jumla waaye aajaloo ba aajo woo ga da ko gaar waaye dëkku ca ni ki yow ma ak xiina nga naan yow ma yaquumu yow ma taquumu saatu yow ma idin yow ma yafalu kaza kooka mu daaf foo ko fekk aajo na mu daaf ilayhi waaye nag cosaanu wu ca ndax léeg-léeg nga fekk ñu dagg yow ma bañ koo laafal dara hada yowmun mubaarakun waaye bu dee iftiqaar goo xam ne dafa saxoo faw ni ki ak ni ki id ak ida ak xaytu kon danañu ko binaal ndaxte ida dëgg la danañu ni zarfun li ma yastaqbilu min alzamani xaafidun li chartihi mansuubun bi jawaabihi yaani liñ ci jublu place u nasab la nekk de moom dañ ko binaal dëgg-dëgg waaye teewul nag place u nasab waaw id ak id ak ida ak xaysu dañu leen di binaal ndax dañoo aajo woo laaf jëme ci jumla faw daa iman mooy wa kafti xaarin usila façon ngu niroo ngoog gu fiil maanaa gu lisim niru xaraf xaraf mooy aajo woo jumla juñ cee def ndax xam nga ni lisim boo ko beree am na maanaa fiil boo ko beree am na maanaa waaye xaraf boo ko beree du am maanaa feeg dugaloo ko ci jumla nga ne lam yadrib waaye boo nee lam rek kenn du ci xamee dara ah léegi kon yooyu fee xeeti niroo mooy gaara lisim tax mu niru xaraf ba ñu di ko binaal ni ñuy binaale xaraf wa mu arabul asmaa i la ñuy liraab ci lisim yi maa mooy ba nga xam ne qad salima mucc na min shabahil xarfi shabahal madkuur ci niru gu muy niru xaraf niru googu nu doon wax mooy niru gu foor gu dëgër gi loola nag su ko defee ka ardin wa suma léegi mën na am goo xam ne zaahiru li arab lay doon ni ki ardin ak yëpp lisim joo xam ne liraabam kenn du ko nattale day feeñ ni ki rajulu nag farasu nag xaw mu nag wa suma bi maana lism isim maqsuur la bi maana ismu danañu ni maasumaaka nan nga tudd aywa ni ñuy waxee mas muka danañu ni maasumaaka su ko defee alifa ca mujj comme ni ñu ko ni ñu koy dégg nga ni ñuy nattalee liraab ci fata lañ koy nattaree ci suma kon ka ardin wa suma ñaari misaal yi dafa ciy jublu ni lisim jañuy liraab mooy jëmucc ci niru arab moom nag ñaari xaaj la am na zahirul irab ni ki ardin ardun ardan wala muqaddarul irab suman suman suman rafa nasab yëpp dañu nattale wa fi'lu amrin fi'lu lamar wa mudiyin ak fi'lu maar bu ni yaa dañu leen di binaal bu jëkk bi ña ngi koy binaal ci la ñu daan jasame mu daari om moom fi'lu lamar min sukoonin aw xadfin dañu daan jasame mu daari o benn sukkoon wala xadaf ndax jasam yooyu yaari màndarga la am mu daari o mu ne lañ koy jasame fi'lu lamaram ca loolu lañ koy binaal waaye moom kenn liraabu ko moom lamar mudiyi nag fi'lu maat dañu koy binaal bu ca dara jokkuwul ci fataa sue boo gu feeñ la ni ki dara ba mbaa gu ñu nattale ni ki boo nee rama bu ca dara jokkuwul daal ci fataa la ñu koy binaal ah bu ca waaw jokkoo ñu eh, binaal ko ci dàmmu munaasab di dëgg wa aaraboo li arab nañu mudaari an mudaari an in ariya su fekkee raflewu na min nuuni tawkiidin ci nuunu tawkiid mubashirin ju jokkoog moom dara bañ a dox diggante ba su dégg nga su ca su ca muccee su ca rafle woo wa min nuuni inaatin ak nuunu tawkiid nu maanaam nuunu guy tegtale ni mbo faayil yi jigéen la yooyu yaar daal bu ca feelu mudaari an muccee dañ koy leeraam waaye bu fekkee nuunu tawkiid mubashir moo ca jokk ni ki la yadri bann fokk kon dañu koy binaal ci fata su ca nuunu inaas jokkoo dañ koy binaal ci sukkoon ni ki yatarabbas na ak yadrib na ak yaru na dañuy tiital ñoom jigéen ña man futina ku ñu fitnaal bi xubbihinna fil axirati aywa mu ni nag nuunu tawkiid mubashir luy mafhumu mubashir fi'l mudaari on su ca nuunu tawkiid jokkoo ju sësut ak moom xanaa damiru fayil ba dox diggante ba kooku du teeñu li raab ko dégg nga du teeñu li raab ko kon ma maanaam yadribuuna yadribuuna waaw woowu fayil la soo ci jóg soo ko doon fedd léeg nuunu tawkiid du doon mubashir dégg la dëgg la sàdd ak nuun gi sukkoonu nuun gi dana tax waaw wi danañ ko xadaf lafzan waaye ma nga fa muqaddaran nga ni wallahi la yadribunna azzaydoona la yadribunna ni ki latub la wunna dégg nga nun taw gii da nga ca waaye du mubashir ndaxte waaw wi nga xam ni moo waroon a doon faa'il ma nga fa illab tasrif moo ko gén dindi ñaari sukkoon yu nar a daje wal maxduufu li illatin tasrifiyatin ka thaabit lu ñu xadaf ngir illag tasrif moog lu fa nekk kenn xadaf ko ñooyam ci at kon la tub la wun na feelu mu daare omi dañ koy liraab nañu ko daan liraabe ba ba ba ba nga naan hunaalika tablu tablu kullu nafsin tablu marfo la bi damin muqaddaratin ala axiril kalimati alal waaw ka yaru na man futin daal defe naa dana metti waaye wépp xaraf mustaxiqun lu yelloo la lil binaay waaye nag xarfin wépp xaraf mustaxiqun lu yelloo la lil binaay wa muttasifun bihi ijmaan iz laa yatacaaqabu calayhi min almacaani maa yuxtaaju fi tamyizi baynaha ila al icraab loolu moo ko waral dafa ni wépp xaraf yelloo na binaal ñu ni déet yemul ci yelloo gi melo woon a koot yelloo na ko te day amit mustaxiqun lil binaa'i wa muttasifun bihi ijmaan ci dëppoog ñëpp lu tax laa yataaqabu alayhi min al maani maa maa yaftaxiru fi fi tamyiisi baynaha ila al irab ay maanaa du ca awante yoo xam ni sep xàmmee leen mooy illa ji ñu liraabe baat ndax cosaanu liraab bëgg a mën a séparer al maani al mutaaqibati ala al kalima ay maanaa yuy wutoonte baat bi taaratan lisim ji taaratan day def dara ñu di ko tudde faayil rafaa ko ñu mën ko caa xame ëllëg dañu koy def daraja mu tudd mafool soppi ko nasab ko léegi maanaa yu wuutante faayil yi yëgeeg mafool yi yëgee dégg nga bu dee ci fi'lit noonu du dëgg liraab léegi daananu ko misaal ci laa taakuli samaka wa tashrabil labana boo jaree noonu baax na waaye lu ban maanaa lay maanaa boo kasra baa bi laa wax rek boo ko jasamee ndax tashrab da nga koo jasam de kasra gi du dara lu dul taxallus min iltiqaai saakinayn soo nee laa taakuli samaka wa tashrabi labana jasam ñaari feel yi da nga ko ni yooyu yaar bu ci def dara benn maanaango te ci feel la nu ne de yooyu da nga koo tere mu def ya yaari jëf yi bul naan soow mukk ñu ni waaw ñu ni ko bul lekk jën mukk ñu ni waaw aywa nga daal di eh, n- nasab bu ñaareel bi bañ koo jasam nga ni laa taakuli samaka wa tashrabal labana ban maanaa la dig tere woo ko ci dara ci yooyu yaar waaye da ngay bañ rek mu boole leen waaw loolu mooy bul di lekk jën di ko booleeg naan soow bo- wolof boo ko wax mu xam tere woo ko lenn ci yooyu yaar da ngay bañ mu boole leen benn tànk seen nasab gi nasab bu ñaareel bi moo joxe boobu maanaa nga dellu rafaa bu ñaareel bi seet nga ni laa taakuli samaka wa tashrabu labana ban maanaa la joxe léegi dégg nga maanaam da nga koo tere lekk jën bu mu bu mu ko def nga ni ko nag da da ngay naan soow maanaa dil naan soow yow bon da nga koo tere lekk jën sant ko muy naan soow maanaa wa tashrabu labana dafa mel ni da nga ko ni wala ka shurbu labana ndax mën ngaa naan soow wa anta tashrabu labana kon bul lekk jën maanaam dil naan soow mbaa da ngay naan soow aywa seetal li rabbi kat moo tamyiz ha- hadihi al maani al mutaaqabati ala ala hada al fiil du dëgg kon nag xaraf moom bu dee tawkiit inna day tawkiit deng du ci jóge beneen maanaa du ci jukk mukk lam day weddi day dàq laa du dëgg laa day dàq mbaa muy tere la déet faw maanaa boobu moo cay ne abadan menn maanaa cey ne bu dul soppiku mukk kon lu ñu cey doyal li arab loolu moo tax mu ni kullu xarfin mustaxiqun lil binaa'i wa muttasifun bihi ijmaan id laa yataaqabu alayhi min almaani maa yuxtaaju fi tamyizi baynaha ila al irab wal aslu fi lmabniyi an yusakkana lu doon cosaan ci lu ñuy binaal mooy boog ñu binaal ci sukkoon moo doon cosaan lëf loo fekk ci cosaanam bul laaj waaye loo fekk mu génn ci saanam sañ nga laaj ni waaw lii lu ko waral ande lii xaw ma lu ko war a def loolu kenn du ko wax lisim joo fekk ñu liraab ko bul ni lu tax ñu liraab ko mooy cosaanu lisim waaye soo dikkee fekk ñu binaal ko ni waaw lu tax ñu binaal ko ñu laa nangam nangam jin doon jàng léegi niru xaraf dégg nga kon su su demee ba ñu di ko binaal moom lisim kon war nga laaj lu tax ñu binaal ko ñun la niru xaraf waaye bu fekkee ci sukkoon la bu laaj leneen de bul ni lu tax ñu binaal ko ci sukkoon kon dañu la ah du looloo doon cosaan waaye nga fekk ñu binaal ko ci ak maska xaraka a su boobaa beneen laaj sañ nga ko lu tax ñu binaal ko dafa niru arab ah lu tax ñu binaal ko ci xaraka du dëgg Eh, te bañ koo binaal ci sukkoon ñu ni la nangama ko waral du dëgg nga am beneen laaj boo laaj lu tax ba ngeen koy binaal ci xaraka ngeen tànn xaraka sàngam seetal loolu ah loolu fokk kon ñetti laaj mën na ci tegaloo lu tax ñu binaal ko dafa niru arab lu tax binaaluñu ko ci sukkoon ki doon cosaanu binaal xanaa di ko binaal ci xaraka eh, ñu ni xëy na eh, dañoo ragal eh, dajewu dañu dañoo wut woyefal maanaa déet eh, lu mel ni lu mel ni ay na du dëgg aywa léegi lu tax ñu binaal ko ci ak xaraka xanaa bañ a ñaari sukkoon daje ñu ni ah waaw luñ ci tànne ak fataa nag ndax ñaari sukkoon suñu daan baje bañ mu daje kasra la ñu daan def genn ga ñu ni fii jublu tax fiif dañoo bëgg a woyofal moo tax ñu tànn fataa xaytu ñu binaal ko nga ni waaw lu tax ñu binaal ko ñu dafa niru xaraf ci taqoolaafe gi lu tax bañ ko binaal binaaluñu ko sukkoon dañoo bañ ñaari sukkoon daje ndax yaa ngi lañu sukkoon waaw moo tax ñu binaal waaw ba ngeen ko dee def ci xaraka lu leen teree eh, def ko boog xaraka gu gën jege sukkoon te mooy fata mu gën woyof ci xaraka ñu ni tashbihan lahu bil gaayaati ka baadu wa qablu moo tax ñu binaal ala yooyu laaj yëpp nuy bëgg a rey li ñu